exception ci lépp lu baax waaye iblis it moo nekk exception ci lépp lu bon kon moo yore opposition bi waaw waaw kon nag dafay jaadu mu fekkee daje ba génnewul sunu boroom waaw waaye Jibril dafa jaaxle ndax defoon na loolu warul mën a nekk mais fekk sunu borom dara tënk ko waaw yu mel noonu mooy tax nit ñi war di tey ci yu bare dégg na fan yi sax kuy soow ni yi xew ci réew meek nit ñi di wax lu tax Moustapha Sy waxul ma ne waaw réew mi Moustapha Sy rekk a fi nekk loolu kenn mësu ko gis mais fekk na man dafa am koo xam ni moom may orienté muy Seyid Cheikh Ahmed Tidiane gis nga li mu waxoon ni bu ñépp dee wax booba noppi jot na te Sénégal ñépp a ngi wax kon nag xam sa bopp ak sumtu xukumun waaw mais bu ñaareel bi moo war a tax nit ñi gën teey mooy mag ñi dañu war a xàmmee ñaari xutba yi xutbatu alladina anamta alayhim ak xutbatul maxdubi alayhim aw dalin mag ñi dañuy natt ba foofu am na ñoo xam ne bu ñu waxee yàlla seen kàddu ci alladina an'amta alayhim ca la koy natt ndax du wax mukk lu leen wóorul mais am ñu nga xam ni nag même bu leen yonent juróon wala wali yu jur leen bu ñu waxee seen kàddu ci almaghdubu alayhim aw ad-dallin ci lañ koy natt ngeen baal ma nag may wax aaya fekk ci biir phrase arab la bokkul ak bu may wax aaya fekk ci biir alquran la ñaar yi bokkul waaw bu ko defee xàmmee ñaari discours yooyu dafay am solo ndax sens de responsabilité mooy tax te sunu boroom fi muy nattee ak fi nit ñi di déggee dafa nekkul benn moo tax mag ñi seen yitte yépp mooy baat yi yàlla ni muy utiliser baat yi bu téyee mu ne alqawl bu téyee mu wax alkalaam quelle est la différence entre alqawl walkalaam alqawl bu ko yàlla dee wax rekk xamal ni lu dundul la innama qawluna li shay'in ida aradna an naqula lahu kun fa yakun mais bu fekkee ni kalaam la nag li yàllay waxal def ni jonn ci kanamam wa kallama allahu muusa takliman waaw looluy tax différence yi am yépp ci xëccoo yi ñàkk a xam yëf yi fi muy jaar fan la looy tax ma bëggoon bu ëllëgee démarche scientifique boobu ñoom capitaine jël ci wàllu checkpoint mu dolli ma ci xalaat ndax génération bi seen bos la démarche scientifique ñoom ñoo ko moom ñun ay ndongo taalibe lañu sunu njàng paasewul daara ji baal leen ma soj bi la de waaw le checkpoint avant mu ñëw ci nit ñi ma nga commencé ci sunu boroom yàlla mooy régisseur bi jëkk pour installer checkpoint ci baatu inna rabbaka la bil mirsad loolooy tax dara du ko rëcc waaye itam y a un mu xam ni li mu tal am na yoo xam ne détail la ci moom ndax la ca nekkoon farata def na ko alam tara kayfa faala rabbuka bi aad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد معتقد لخوا فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد mu mel ni mirsaat boobu mu tudd moom sunu boroom waaw moo moo tas ci àdduna sax waaw ngay dem ci prison yi gis fa li ñoo tudde mirador nga dem ci aéroport yi gis fa li ñoo tudde tour de contrôle nga dem ci caserne yi toujours am na ñuy monter pour di xam tout ce qui se passe autour du caserne yooyu yëpp ci mirsad boobu la jóge sunu boroom xam ni am na yeneen yu ëpp solo mu jël check point bi chargé ko sharia sharia personnalisé checkpoint bi waaye bi ñu demee ba gis nii côté sharia kese kese du mën a gérer lépp ba mu jeex ci la mag ñi jóge pour nag jël ko check point bi dugal ko ci côté xaqiqo biñ ko dugalee ci côté xaqiqa nag dootuñu ko personnaliser mais dañ koy personnifier looloo tax baat bi ñu leen tudd sànq waaw baynahuma barzaxun la yabgiyaan baatu barzax boobu biñ ko personnifié foofu la mag ñi rawante bu demee ci maamam bi mu tudde woon checkpoint bi passé ba muy tudd Seydina Cheikh tey wax wal xawsu wal barzaxul maktuumu aliya aqtaabil ilaahi bila raybin wa tabyine Seydina Cheikh nekk boobu mu nekk albarzax parce que conservateur la ci parce que albarzaxul aadam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi mu fi jógee mu confier ko Seydina Cheikh pour mu conserver ko gannaaw bu ngeen fàttewul am na gàmm guñ ko waxtaanee fii ba sunu mbokk waa Mauritanie yi di di sarxole te moo di ñoom tudd giñ ko tudd ba noppi tudd Sëriñ Babacar woykat yi dama dégg ñu tudd ñetti baat ci fan yi passé rekk dégg naa ko ci Sambou dégg naa ko ci ñoom Pape Malick Baye ñu tudd ñetti ñetti njool njool Màkka njool Fuuta ak njool faama waaw wolof nag mooy wax ni ku lu sut nga ni ko njool mi dara nekku ci waaw kon nag buñ ne ñetti njool yi li ci mat a xam moo di lu wolof di wax ni suuf bu sutee moroom ma dañ koo jal kon nag moo lay xamal ni loolu machia rek moo koy def waaw sut suuf bu sut moroomam dañ koo jal la ko jal moo jara xam wa anta min al axlaaqi tamliku ma tasha wala yamlikuuna minka gayra al machiati mu mel ni pour nga mën a xam seen njool njool yooyu le dafay laaj nga xam ñaari baat baatu algaaya ak baatu alkamal algaaya mooy arrivé yi ligne d'arrivée yi mais ligne d'arrivée aussi par ordre d'arrivée la am na ku njëkk a yegsi am ku ca topp am ku ca topp mais ñëpp yegsi nañ mais ordre d'arrivée bi kooku nag arbitre bee koy xam waaw moo tax nag buñ ne alkamal mooy qualification bi mën nga am score te doo am qualification moo tax mag ñooñu ñu tudd yépp yemuñu ci seen score mais seen qualification kenn ku ci nekk ak mayam xam nga woykat yi sax léeg-léeg ñu dugg ci fekk mag ñu baax ñépp ñu ngi ci biir ni njool màkk lu mu ñaan yàlla def def na ko effectivement njool fuuta lu mu ñaan yàlla def na ko njool faama lu mu ñaan yàlla def na ko mais lu tax mu def ko lan moo tax mu def ko li leen qualifié ba tax loolu mën a am loolu moo jara seet waaw looloo tax bu ngeen seetloo ca waxtaan ya paase woon